الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 di ko ñaan mu defal ñu suturas àdduna defal ñu suturas àlaxira mbokk yi bàyyi xel almisbaax ñoo ngi leen di bége bu baax a baax di leen ndokkeel delluwaat di bég lool ci ni ngeen di ànd ak ñun jotaay bi saa su nekk def ko muy seen jotaayu wéttal def ko muy seen jotaayu fàttaliku yal nañu borom bi subxanahu wa taala boole sàmm di beral cant ak ngërëm soppee almisbaax yépp soppe almisbaax yi nekk ci biir réew mi soppe almisbaax yi nekk bitim réew jàngkati alxuraan yi jàngkati alxuraan yi jàngalekati alxuraan yi doomi daara yi ak ñi safoo daara ak ñi dimbali daara ñépp ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ci ni ñuy ànd ak ñun jotaay bi niñ koy doore ab diira ngi nii almisbaax di ko doore ñaan ñaan borom bi subxanahu wa mu wàcce jàmm ci àdduna bi ñaan ko itam mu wàccee ak wér ci àdduna bi ñaan ko mu wàccee ak xéewal ci àdduna bi borom bi mën na ko yàlla nañu ko boole defal jamono ju nekk lëb jullit waroon na yittewoo ñaan ak yi nga xam ne moo ci aju rawatina nag jamono ji nga xam ne ci lañu toll te mooy jamono ji nga xam ne moom la dund ndax taxut mbir yu yomb lool daa tàmbali woon a jafe waaye day gën di jafe yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne woon na ab jullit de ay mbiram yéeme na ndax moom lu metti bu ko dalee mu muñ mu soppaliku xéewal ci moom lu neex bu ko dalee mu sant mu soppaliku xéewal ci moom nga xam ne loolu ab jullit dong ko am ku dul ab jullit amoo ko du njàbbat ab julit du tiit ab jullit du jàmbat ab jullit du tiit waxoon naa la ci bind yi ñu génn ne la tiit feebar la boo xam ne xaw tuuti kon mu tol ne feebar bu bon bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane ndax wala na nabluwannakum bi shay'in la ca boroom ba teg mooy minal xawfi daa am ñoo xam ne feebar bi leen dal mooy feebaru tiit maanaam amuñu ak dal foo leen fekk seenu fit mi ngi tëf-tëfi ndax àdduna mooy def noonu àdduna mooy bittarñiku ak di la tiitloo seytaane di la ragalloo ba day mujj doo ànd ak sa sago ëllëg ëllëgi borom bi la subhaanahu wa taala moo koy def nu mu ko neexe yàlla nañu defal ëllëg ji gën defal ko suñum réew doomu aadama bi tey mooy mbiram li ci kanamam li muy waajale ëllëg na doon góorgóoru tayam mu jàpp ne day fekki ëllëg ci am xelam waaye jàpp ne it du fekki ëllëg ci am xelam ñaar yooyu la nit ki di boole moo tax dañ ko naan bu doon kenn dong mooy fekki ëllëg na jàpp ne moom la ci yaakaar gi muy yaakaar boromam waaye buñ ko ne woon ñëppay fekki ëllëg ba des kenn na jàpp ne moom lay doon moom mooy ki ko fekkee ci wek ak ragal gi nga xamante ne moom lay ragal boromam subhanahu wa taala loolu ay jikko la yooyu faaw ñu yor ko muy suñu laytaay nekk suñu ngànnaay ndax jamono ju nekk la amoon solo waaye rawatina jamono ji nga xam ne moom lañuy dund ñaan borom bi subxanahu wa taala murus ñu ci boppam ndax daraam xajut ci ñun yërmandeem rek moo xaj ci ñun waaye nag ñun dañoo gaaw a fàtte waaye moom xam na ko ndax suñ maam aadama la jëloon dëkkar ku biir aljanna dëkkuwaay ba neex lool teewul mu def fa luñ koy tere ba wàcc ci kaw suuf looloo ñu topp coono boobu ba tey ji wàccaguñu ku judduwul woon doo fekkee jafe-jafe yi waaye ku faatu woon daawit doo fekkee jafe-jafe ren yi kon fekkee waral njàmbat mhm. fekkee rek a waral njàmbat looy jàmbat lu ne rek dang koo fekke waaye boo ko wuute woon doo ko jàmbat alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ala kulli xaal loolu la ab jullit di wax maa ngi sant saa boroom ak lu mën a xew imam Shafii daan na wax ne bu cant xasee ba jiitu njàmbat dootu fa am place moo tax ab jullit day saxoo sant di masawu bu baax nag ñi nga xam ne nattu yi laal na leen yépp ndax nattu yi tawat ba tëdd ñu lay seeti tawat la waaye jafe-jafe àdduna ak ay bëttërñikoom ak ñàkk jekkam loolu itam tawat la yal na yàlla yokku xéewal ñi nga xam ne xéewalal na leen dañuy gestu ñi nga xam ne ñoo leen tane ku leen junj mu doy ndax am na ñoo xam ne li ñuy def yàllay kese kese kese moo tax boo ko waxee waxaat ko sax tàmbali leen a euh, sene waaye daara yi xam nañ seeni taxawaay yalna yàlla fay leen te baril ñu mel ni ñoom te suquleel leen leen seeni am am te musal leen ci am ndog barkeelal leen seenu njaboot yàlla mën na ko yàlla nañ ko boole defal am loolu lay jariñ ñu ñàkk ñi de ñoo mas a ñëw ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñu am ñi de yóbbu nañ tiyaaba yépp ndax ñi am bu ñu dem ci xare ba ñu ànd ak ñun xare ji ñi am bu ñu noddee ji julli ci ji ñëw julli seen doone ñun waaye ñi am nag bu ñee nañ def ci yoonu yàlla ñoom ñu am luñ def te ñun duñ am luñ joxe kon ñoom yóbbu nañ yool bi zahaba ahlu dusuuri bil hujuuri yóbbu nañ yool ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca mbaax ga ak laabiir ga ak bari yërmande ga mel ne dana leen jege si leen ma déy leen ñu jege si mu ne leen bu ngeen julleetee ba noppi yéen ñi ñàkk day leen def subhanallah 33 dee leen def alhamdulillah 33 dee leen def allahu akbar 33 dee leen def la ilaha illallah 33 mais ne da leen ko déey ne leen dee leen ko def ndax ngeen dabe ko bokk ñi am ci raw giñ leen nara raw ba ngeen jàpp ne yóbbu nañ tiyaaba yépp waaye ndeysaan ku am ta tabe te nangoo def ci yoonu yàlla nangoo dimbulee te yàlla tax li lay ump da bari ndax doo wét nit ñi dañuy ñëw ci yow dañ lay seetsi te dañ lay bàyyi xel dañ lay boole ci seen bopp te dañ lay yéene aw yiw moo tax ca saasa rek ña am ñëpp yëg secret bi ndax dañoo dem déy leen ko ñu julli ba noppi ñu ñàkk ñëpp daal di tàmbalee lem seeni baaraam di tocc toccal subhanallah geesu gis ñi jàppe woon ne ñu am lañ ñu toog ci seen wet di ko def ne ñoom ñu dellu si wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne leen nag loolu xéewalu borom bi la goo xam ne moo koy jox ku ko neex dalika fadlullahi yutihi man yasha xéewalu borom bi la goo xam ne mooy xéewalal ku ko neex moo tax am moom baax na lool donte am nattu la hmm, am am nattu la de natu bu rëy la ndax borom bi subxanahu wa taala bu la joxe lu ëpp say soxla dalaa jaamuloo yàlla ci lim la jox jaamu yàlla gi tegtalewul ne da ngay jël lim la jox lépp joxe ko toog déedéet ndax biñu waxee ci alquranul karim ne lan la ñuy joxe suñ borom daa wax ne aw des yasalunaka maada yunfiquun lam ca tegoon mooy xulil afu aw des maanaam mën a la joxe lool waaye nag bul doon koo xam ne itam da ngay tàlli ba ne ñayi ñu na paaja la bu ko defee nga yàqule jeexal déedéet borom bi dala ci nattu léeg-léeg day teewal ay yëf ci sa kanam yoo xamante ne farata la bu ko defee nga def ko farata jooju itam farata lay doon yal na yàlla may ñu bañ mën a xàmmee lan mooy farata ñu di ca sonn ndax léeg-léeg nit dana am bëgg a def waaye yàqkat yi def lu baax yi tax nañ ba kenn mënatul a def lu baax waaw am na ci suñu réew ay jikko ak ay démarches yoo xam ne ku dox ba àgg ca xam ne moo raw fuuf coronavirus mi moo ko yées yal nañ ci yàlla musal ndax tey ki toog ne day dimbulee buñ waxoon ne diw sax daa dimbulee moo joxe nangam moo joxe nangam wala moom de daa sensible ci feebar da nga gis nit ñi di fabriquer ay ordonnances yu dul dëgg di ko yët ba day mujj yàgg dootu nit dana indi ordonnance ba eh, sukk ne laas ci suuf waaye mu jàpp ne naxekatub daaw ba fi jaaroon a tax kon kooka kee moo ko yàqal eh, moo ko mujj teg beneen programme bu nekku doon programme am ñoo ngi ndokkeelaat ñëpp ñaan borom bi subxanahu wa taala mu jële fi tawat ji sàllaaw da ngay mujj sax ruus ndax day mel ne ñun ay nit lañ yoo xam ne ay xaraki nag lañ gën a nuru ndax su fekkee dañ ñoo wax ne ñu toog leen ci kër yi ndax tawat ji dañ. xam naa léeg-léeg toog te yuro loo toogee dana jafe ndax léeg-léeg nit ki gën a mën a porter combat boobu ñaari yëf mooy mën a am mooy moom mu am lu mën a toogee dundal ci ak njabootam wax dëgg yàlla ba bu génnuti du ko yëg mu man ne na ku ne toog fi nga nekk bàyyi leen jaxasoo bi bàyyi leen dem beeg dikk bi wala mu doon koo xam ne dafa xam lu nit ñi xamut ci yëf yi maanaam doon koo xam ne dafa am responsabilité lool ba noppi yeewu xam li xew nga xam ne léeg-léeg mu mën koo waxe noonu waaye lu ko moy sëfuur bi doon transport ñi bëgg ko wax ne ko toogal gaare sa oto bi diggante dëkk ak dëkk yi nga doon dem bu ca demati te yàlla xam na ne bu xëyee te dawalut boo moytuwut bu gannaaw subaa kër gi duñ taal léeg mu jaral ko jaar ci mbooy gi wala mu jaral ko fétal wala mu jaral ko doxal doxalin woo xamante ne dëppoowut ak yu waroon a am donte loolu moom xel xalaatut ñi di ko encouragé ndax tënku ci yoon daa gën a noppale rawatina loo xam ne buñ waxee ne tëri leen vingt heures tëri luñ kenn du kenn moo tax ñu dem tëri waaye dañoo dem fatu ji vingt ndax bëgg tawat ji jeex fi jàpp ne jaxasoo yi loolu da koy indi sàllaaw yemuñ ci loolu waaye suñu julli juróom ci jàkka yi sax dañ ko bàyyi nga xam ne loolu man lu ma gën a metti noonu amut suñu julli ajjuma yi maa ngi ko namm bay bëgg a dee jotaay xutba yu am solo yeeg ni ñu dundale jàkka yeeg ni ñu dundale jumaa yi taxawaay yu am solo yooyu ndeysaan moom itam furaas daldi xëddeen ñu ne ñu buñ ko def ndax jaxasoo googu da koy indi léeg-léeg nag mu am ci dëkk yoo xamante ne boo génnee Dakar da ngay gis ne tëj nañ jumaa yi waaye jaxasoo yi am ci marché yi jéggi na dayo lool damaa xamul lu ciy pexe nag waaye jaxasoo yi am ci marché yi jéggi na dayo waxuma ñu dakkal ko jaxasoo yi am ci marché yi waaye nag jot na kon ñu jéem a xool nan la ñuy organiser jàkka yi ak jumaa yi bañ daje fa di julli jàpp naa ne loolu war naa mën a nekk war nañoo mën a organiser jàkka yi war nañoo mën a organiser jumaa yi fexe ba nit ñi am ak yeewu ci loolu xutba yi jëm ci luy encourager nit ñi ci ñu jëm ci ket jëm ci luy encourager nit ñi ci ñu sàmmonte yi nga xam ne moom lañ tere yépp fi mu ne loolu dafa doon loo xamante ne barabu message la ak itam barabu ñaan borom bi subxanahu wa taala ak jaamu ko te loolu toll nañ nag ci jamono joo xam ne war nañ cee dellu moo tax bërki démb bi may gis ci internet bi ñuy melalak ak xalaat sax bu ñu àggee ci koor gi ñu bañ a woor ma ne looloo ci desoon nag ndax bu dee nee nañ aj ga bu ñu aj si umra moom waxi nopp julli juróom moom nee nañ bu kenn def seeku ci jàkka yi far mbooloo mi di daje ajjuma moom waxi nopp ñuy dem nag di xalaataat koor ak ñàkk koor loolu moom leneen la alhamdulilah ba nga xamante ne du wax joo xamante ne wax ju tegu fenn la wala muy wax joo xamante ne wax ju jar duma sa doom la ndax bu nangam amoon nangam am bu nangam amoon nangam am bu nangam amoon nangam am kum neex mën ngaa tëdd di ko wax kum neex nga ne bu ñëwee ba tabaski ga bu menn xar amut ci réew mi ku amutum xar tabaski wàcc na la waawaw buñ demee ba àgg ca koor ga ak jàmm docteur yi gis ne ku woor nangam ak nangam ak nangam ak nangam defe naa ministre de l'intérieur du yabal ay alkaati ñuy wattu ñu woor waaye nag mbirum nit la ak boppam ndax fi may waxee yow ku tawat boo demee ca kër docteur docteur bi xool la gis ne da feebar wax la ne la bul woor wa in kuntum marda ja day daal dugg ci yow bu fekkente ne da ngeen a feebar la alxuraan wax aw ala safarin wala ngeen nekk ci ab tukki bu boobaa koor gi da leen di wàcc waaye waroon na leen ba ba ngeen di noppi ca gàllankoor yooyu ngeen nekk bu ko defee koor gi war leen yal nañu yàlla musal ci loolu na xam naa ne fi mu ne mi ngi am waaye am na ñoo xamante ne boobaak léegi sax liñ fi dog seen bëriwut manees na ko wàññi te borom bi subxanahu wa taala mi ngi leen di musal yal nañu boole musal yal na wàccee jàmm ci àdduna si ñoo ngi ndokkeelaat bu baax a baax soppee almisbaax yépp rawatina ñi nga xam ne lépp luñ dégg muy ab joxoñ buñ ko joxoñee buñ xëyee ànd ceeg ñun di ci bay seenu waar ba ne laaj yal na yàlla fay leen te barkeelal leen li nga xam ne ñi ngi koy dese ci seeni alal suñu jotaayu démb biñ ko yëkkati maa woon ci naafila maanaam sunna yi nga xamante ne dañ koy julli ginnaaw jullik farata ginnaaw jullik farata dafa am ay naafila yoo xam ne naafila yi sunna la yoo xam ne jotoon naa la cee limal lu mel ne ñaari ràkk bala ngaa julli tàkkusaan wala boog ñaari ràkk bala ngaa julli tisbaar laa bëgg a wax ak ñaari ràkka boo jullee tisbaar ba noppi waxoon naa la xadis bi nga xam ne ummu Habiba moo ko nettali jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam imaam ahmad ak tirmisi indi ko ci seen téere mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku julli ñeenti rakk avant ngay julli tisbaar ak ñeenti rakk ginnaaw bi nga jullee tisbaar ba noppi nee na suñ boroom subhaanahu wa taala na la ci sawara jaaroon naa ci ak yow démb ak julli ñeenti rakka bala ngay julli tàkkusaan nga jiital ñeenti rakka wala nga julli ñaari rakka boobu itam hadis la boo xam ne imaam ahmad ak abi daawuda indi nañ ko abdullah ibn omar net li ko jële ko ci ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam mu ne raximallahu imran salla xabla al asri arbaa yal na yàlla yërëm ki nga xam ne day julli laataa tàkkusaan ñeenti rakka laataa muy julli avant day julli ñeenti rakka imam abu daawuda nettali xadis bi nga xam ne saydna aliyun karamallahu wajhahu moo ko jële woon ci ku tedd ka alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na julli lu jiitu tàkkusaan ñaari rakka daan na julli lu jiitu tàkkusaan ñaari rakka yooyu mooy nga xam ne jotoon naa la ko junju démb mu bokk ci naafile yi nga xamante ne bëgg na nit ki di ko def lu jiitu muy gannaaw bi mu jullee jullik farata ba noppi yenn yi mu di ko def lu jiitu muy julli jullik farata ba noppi sopp nañ bu ko mënee def mu def ko ñeent ñeent maanaam ñeenti rakk avant tisbaar ñeenti rakk ginnaaw tisbaar ñeenti rakk avant takkusaan ginnaaw takkusaan amut ak naafila ñeent yi dañuy wax ne li kasrati na ngir bari gum bari ak pay moo tax ñu la ciy xirtal waaye ki ko mënut mën naa def ñaar loolu li ci rot ci ay ahadis yu baree baree bari la bokk na ci itam ñaari ràkk bala ngaa julli timis ñaari ràkk bala ngaa julli timis loolu lu ñu sopp la rawatina ci lennat ci mazhabu imam Saafi'i am na xadis boo xam ne imam Buxaari indi na ko Abdullahi ibnu Muxfal nettali ko ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne julli leen avant timis ñaari rakka juli leen laata ngeen di julli timis ñaari rakka neena mu wax ko ñetti yoon daal cey teg moom yonent bi ne liman shaa ku mu neex neena ku mu neex nang ko def li tax mu ne ku mu neex ñoom ñu ne karahiyatan an yataxidaha naas sunna ngir bañ nit ñi jàppe ko mu nekk sunna moo tax mu ne ku mu neex boo demee ci yeneen réew yi tey bu la yàlla yóbboon màkk yàlla nañ ko ubbiwaat ak jàmm bañ tàmbulee dem ak a dikk da ngay gis ne dañuy noddu timis waaye danañ toog tuuti léeg lu mat cinq minutes wala sept minutes wala dix minutes dooru julli jamono ji ñu noddee timis diggante booboog ñu koy julli foofu lañ lay wax ne la nga naafi la fi ñaari rakka ñaari rakka yi ngay julli foofu gannaaw bi jant bi soo ba jeex ñu noddu timis te julleeguñ xam nga tàkkusaan ja paase na timis ji daa tàmbulee dugg si bu boobaa foofu lañ koy jullee léeg suñ jàkk yi bu noddu gi daanoo rek noddu timis la cee topp mooy daal di liqaam ca saasa bu boobaa kon loola dootu mën a tee am moo tax mu teg ca ne kon liman saa moo tax anas di wax ne noddukat bi bu masaana noddu ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam neen da ngay nit ñi ñuy gaawantu barab bu nekk kenn bàyyi koo fa jëm si ci jullikaay bi nee na diggante boobu nga xamante ne daal nañ ko am moo tax nit ñi daan mën a julli ñeenti rakka wala boog ñaari rakka lu jiitu ñuy julli timis kon ñaari rakka lu jiitu ñuy julli timis moom itam ci sunna yi la bokk euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko sallu xubaylal maxrib wax ko ba mu ñetti yoon mu daal di wax ne liman saa ku mu neex nanga ko def am na sax ñuy wax ne ñeenti rakka ginnaaw bi nga jullee timis ba noppi wala ginnaaw bi nga jullee timis ba noppi bëgg nañ nga naafila ñeenti ràkka boo ko boolee ak ñaari ràkka yi nga xam ne moom nga naafila woon laataa ñuy julli timis dangay am juróom benn ràkka ci julli ki nga xam ne mooy Ammar ibnu Yaasir radiallahu anhu nee na gis naa soppe ba di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam isan nee na muy julli ginnaaw tàkku ginnaaw timis juróom benn ràkka allahu akbar nee na gis naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu masaana julli timis ba noppi dana naafile juróom benn ràkka nee na am ñu wax ne wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne koo xam ne julli na timis ba noppi naafila juróom benn ràkka ñu jéggal ko ay bàkkaaram yépp donte ay bàkkaaram dafa tolloon ne duusi géej gi waaw ni géej gi def noonu di bëmb di sànni ay duusam nee na bu ay bàkkaaram tolloon ne duusi géej gi ki nga xamante ne ni julli na timis ba noppi naafila juróom benn raka suñ borom subxanahu wa taala jéggal ko ay bàkkaaram yal na yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar jéggal ñu jote jiitu ji ñëpp suñu wayjur alaaji Golbert Diagne ci la bokk naka noonu itam suñu wayjur Serigne Mbaye Oumy Sarr nekkoon xalifub Serigne Mbaye saar ci njariñ yal na ko yàlla xaare aljanna te dajale koog maam ya te defal ko njéggal ñoo ngi koy jaale njabootuk Serigne Mbaye Sarr gépp ñoom ñëpp ñoo ngi leen koy jaale di ko jaale suñu wayjur sëñ Saaliwu Lo xalifa sëñ Mor Absa Lo waaye yonent yàlla Muhammad nee na daal koo xam ne ginnaaw julli timis danga naafila juróom benn raka suñ borom subxanahu wa taala dana la jéggal say bakkaar donte bakkaar yi dafa tolloon ne duusi géej gi donte bakkaar yi dafa tolloon ne duusi géej gi suñ borom dana la ko jéggal xadis bi nga xam ne Ablaye Moxfal moo ko nettali woon te ma waxoon la ko léegi te mooy julli ñaari raka laata julli timis day wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy wax ñu julli ñaari rakka laataa julli timis mooy diggante noddu gi ak liqaam gi maanaam diggante ñaari nodd yooyu waxtu naafila la ci kum neex maanaam saa yuñ noddalee aw waxtu balañ koo liqaamal kum neex mën ngaa naafila ci diggante boobu moom la wax nañ ko na ngeen julli lu jiitu timis na ngeen naafila lu jiitu timis na ngeen naafila lu jiitu timis ñu ne ko ah mu ne ku mu neex nanga ko def naafila ginnaaw jullik farata dafa am xikma yu ci nekk yu baree baree baree bari yoo xam ne yu sew la yoo xam ne itam mat naa bàyyi xel ndax waxoon naa la ne julli lañu njëkk a xool ëllëg yowmal xiyaam bu julli yi baaxee ñu jël waa ji dugal aljanna ndax jëfam yépp ay baax bu julli yi baaxut ñu ñaaw njort ci jëfam yi ci des yépp nag moo tax léeg-léeg ñu xool farata yi mu manki ñu dem xooli ci naafile yi ngir jël fa mottulee ko li nga xamante ne mooy farata yi moo tax jiital gi ngay jiital naafile ci farata mujj gi ngay mujje naafile ginnaaw bi nga jullee farata waajal la te itam day tax nit ki yar bakkanam te itam da koy xiir ci ak jaamu yàlla te bu fekkente ne nit ci dafa nekk ci mbiri àdduna di jaayee ka jënd ka waxtaan ba ak si di julli daal di dugg ci julli farata gi direct mën naa am du daggagoon sax digganteem ak àdduna dëgg-dëgg ci ay xalaat waaye jamono ji muy naafila day wàññi doos bi ba bu ñëwee ci julli farata gi day doon koo xam ne day sori lool mbiri àdduna yi waaye jege li ñuy wax alxusu ak xudu ak xudur te mooy ak ragal yàlla ak toroxlu akuk teewlu te ñett yooyu bu amee ci jëf mooy doon ruuxuk jaamu yàlla gi moo tax kiy jiital naafila door a def farata daa mel ne mi ngi netuwaaye bakkanam mi ngi koy waajal ci ag jaamu yàlla gi mi ngi koy tàggat ci waajal jege ji boroomam subxanahu wa taala ak yi nga xam ne moo ci aju yépp bu defee farata ji ba noppi toftalaat ci ak naafila day mel ne mi ngi jël beneen bonus heure supplémentaire lañ koy wax di ko teg ci heure di nga xamante ne ni heure am la yoo xam ne moom la waroon a julli muy julli farata nga xam ne lu ci manki ñu mën ko caa dugal njuumte yaag yu baree bari mu mën a ñëw daal di ko koy mottulil nga xam ne kon dundug doomu aadama bi dara du ci sàggan day góorgóorlu ci julli farata yi a ñëw ci julli naafile yi moo tax ma njëkkee la léegi farata waxtaan ak yow lenn ci julli door a ñëw nag ci li nga xam ne mooy naafile yi naafile lu am solo la nañ ko fonk nañ ko fonk li ko tàmbulee ci naafile yi nga xam ne naafile yu ñu feddali la danaa ci ñëw lu mel ni jullik fajar lu mel ne safaak witr waaye naafile yi nga xam ne moo ànd ak julli farata yi ma baamul la ko ci jeexital bi mooy ñaari rakk laataa ngay julli tisbaar wala ñeenti rakka loo ci def baax na boo mënee def ñeent moo gën ñeent rakk ginnaaw bi nga jullee tisbaar ba noppi wala ñaar ñeent rakk laataa ngay julli tàkkusaan wala ñaar bu la neexee bu ñu noddee timis te liqaamuguñ su fekkee jàkkale joo xam ne bàyyi na ab ab diir nga julli foofu ñaari rakka baax na buñ julee tàkkusaan ba noppi nga julli juróom benn rakka tegtalewul ne indi naa naafile yi nga xam ne mooy ànd ak faraid yi yépp muy farata yi waaye am na yu ma ci jot a joxoñ yoo xamante ne buñ ko sukkandikoo boole koog yi nga daan def ak yi nga xam ne xam nga ko te jotuma koo tudd mu tegtale ne naafila moom am na solo lool yal nañu yàlla nangul suñuy farata nangul ñu suñuy naafila ndax loolu suñu njàmbaar la ak suñu góorgóorluy bopp wàccee jàmm ci réew mi wàccee ko ci réew yi ñu wër suñ boroom moo yor saafara kum ko wàcceel nga mucc nga wér yal nañu saafara bañ wér suñ boroom subxanahu wa taala moo yor am kum jox nga am yal nañu jox bañ am te doylu waaye mu xiir ñu ci ñu koy def fu neex yàlla suñ boroom subxanahu wa taala moo mucc kum musal nga mucc yal nañu boole musal suñ boroom subxanahu wa taala moo jàmm ba tudd jàmm moom ci boppam yal nañu boole jàmmal fii ci àdduna defal ñu jàmmi àllaaxira defal ñu jàmm ci suñu làmmiñ defal ñu ko ci suñuy tànk defal ñu ko ci suñuy bët defal ñu ko ci mboolem li ñu wër ñu yéene ko ñëpp ñëpp yéene ñu ko ñu ànd di dund ci jàmm yal na yàlla boole ñu sàmm ñu jaajëfal leen bu baax jaajëfal Oustaz Alioune Sall moom la ñu bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te sàmm ñu ñaan ko mu defal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi defal ñu suturos àdduna ak suturos àllaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أذكار الصباح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم